الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومحو الظلمه وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بقي جناب نتنبلي تترو يالله تبارك وتعالى julli ci sang-sang yi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sunu borom subhanahu wa taala moo nuy fàttali li mu nuy fàttali nag warunu ko fàtte te mooy yahud ak nasaraan dunu dañ di nekk sunu noon xam ngeen ne ajjuma tey jii ñu taxaw fii tey mooy ajjuma ji nga xam ne adduna bi yëpp a ngi jóg di aar yonent yàlla muhammad lan moo ko waral mooy ci États-Unis d'Amérique ab yahud moo fa defar benn film daati misaal yonent yàlla muhammad ay misaal yu doy waar yoo xam ne moom yonent bi jomb na loolu tuddee boppam Muhammad nekk acteur bi ba pare joué film bi def ci yu ñaaw di xamal nit ñi bëgg a woon nit ñi ne Muhammad nii la meloon waaye loolu lépp olof yi dañuy wax ne bukki bu yabee ponkal ca doxin bala sunu yahudi ak nasaraan yi yabee tey ba romb ñëpp di dem ba ci combaxtal ki jullit ñi gën a fonk ci àdduna bi ñu attaqué ko kon ci jullit yi la suñ fi rombee ñëpp amul kenn ku ñuy ñaawal ku ñuy tilimal ku ñuy yàq deram ku ñuy wax ci moom wax yu bon ku dul Muhammad ci ñun la lu ko waral mooy Alaaji Omarul Fuuti radiyallahu anhu wax na ne ku dee am nga ku la jooy ba mu des lislaam ku dee ku ne ci kaw suuf tey am nga ku lay jooy ba mu des diine lislaam diine lislaam tey moo amul kilifa moo amul njaboot moo amul i mbokk ba tax lu neex waaye mu def ci lu neex waaye mu wax ci kenn du mujj fenn yéen a ngi dégg démb ñu ne dañoo rey ambassade États-Unis ca Libye lu ko waral mooy xew-xew bi tey ajjuma bii ñu taxaw fii àdduna bi yëpp sunu jullee jumaa ba pare dañuy génn lu tax ndax xew-xew boobu ndax ñun jullit yi muhammad lañ am ndax am nañ ku gën a for muhammad ki yàlla ne subhanahu wa taala gaa yi dañoo bëgg a fay leeram waaye xam ngeen ne yonent yàlla muhammad coow lay bari rek suñ ko nataaloon suñu waxoon suñu defoon lépp lu ñaaw ba ba mu fa mu yem du tere muhammad ñaaw ndax yàlla ko yëkkati yàlla moo ne ko wa rafaana laka zikraka yàlla moo ne ko wa wadaana anka man yàlla maa la yëkkati man yàlla maa teggi li la diisaloon man yàlla maa yaatal sa dënn man yàlla ginnaaw ba ma tuddee yàlla yow muhammad yaa ci tegu kon kooku ku ko bëgg a tilimal yow yaay tilim waaye aka neexoon jullit yi ñu xam kooku xoolal fi mu tàmbalee ñun mooy bi nga juddoo ñu wooyu imaam mu ñëw di la tudd bi mu ñëwee yëkkati la daan lay uuf ci ñaari loxoom lan la wax ginnaaw turu yàlla ashhadu an la ilaha illa allah lu mu ci teg wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon jullit bi kañ la commencé dégg Muhammad ba mu nekkee ci berceau nekk ci lal amaana sax boobu jógeegul ci hôpital bi hôpital ba ñëw ci biir kër gi boobu la dégg turu Muhammad waaye Muhammad moomu bi julli gi jotee léegi xale bi nodd turu Muhammad la wax suñuy iqaam léegi turu Muhammad la ñuy wax ci biir julli gi kenn ci ñun julleem du wër lu dul mu tudd turu Muhammad mu des tuuti ay waxtu ay bëccëg ay minit nga faatu ñu génne la ci morgue bi dugal la ci biir kàmb gi daat lay suul ay malaaka ñëw ne la Muhammad loo doon wax ci moom kooku nag ñun tey moom la ñu réere xam nañ ku nekk ci kaw suuf ba mu des Muhammad ñun jullit yi looloo tax su noon yi jógee tey di nataala ko wax di bind ci turu yonent yàlla Muhammad jamono sahabatul kiram kenn ñemewul woon wax ci muhammad dara keroog bu abubakar di dund usmaan di dund ali di dund omar di dund amul woon ku ñemee wax ci muhammad bi fi ñoo ñu jógee la jullit yi yaafuus la jullit yi yaccaaral la jullit yi topp ñeneen bàyyi yonent yàlla muhammad looloo tax li leen dal tey ci kaw suuf daal di leen dal tey ci Sénégal waxuma sax ci addina bi ndax addina bi moom am na ñu yeewu mën nañ fee wax yonent yàlla Muhammad lu ne kenn du yëngu waaye tey boo fi tuddoon tey benn tarix nga tudd kalifa tarixa bi wallahi balaa ngoon ay nit yu bari dee waaye boo waxee Muhammad dara du xew da naana ba yàlla jàpp ko rek loolu nag moo dul lislaam kenn dong lañ ñu joxoñ ci alquran ne buñ ko toppee dugg aljanna buñ ko toppul safara lañ jëm kenn kese mooy Muhammad atiu llah wa atiu rasul topp leen yàlla topp yonent bi wa man yaasi llaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannam gis ngeen yàlla ne ku mooy yonent bi rek safara nga jëm ya ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasul wattaqu llah inna allaha samiun alim yàlla ne yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yonent bi nekk leen ci ginnaaw yàlla ak yonent kooku muhammad kese la moom dong la yàlla wax ne wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee jub kon kooku tey nga xam ne amuñu kenn ku dul moom mooy symbole bi gën a mag ci lislaam bu ñu toogee ba nit ñeme jël di ko jouer film ci ñun la ñun noo warul mel ñun noo mel ñun warul mel ñun noo jàngul œuvre Muhammad histoire am taarix am xamuñu ko loolu moo tax suñ koy xasak suñ koy wax amaana ci ñun ñoo xam ne sax information yi mu ngi jàll depuis barki démb ba léegi waaye yëgunu ko parce que lu tax parce que Muhammad la waaye bu doon keneen bu doon ñeneen ñëpp yëg ko waaye mbokk yi war na noo xam ne ci biir bàmmeel kenn du nu laaj kenn ku dul Muhammad keroog bu malaaka bi di ñëw ci yow di la laaj ñaari malaaka yi buñ la dugalee ci bàmmeel ba nit ñi ñibbi ñaar ñiy ñëw buñ la yëkkatee nga toog duñ la laaj sa pap duñ la laaj sa way jur bu góor duñ la laaj ku jigéen duñ la laaj tarixa duñ la laaj benn seex luñ lay wax maada kunta taqulu ala hada al abdu muhammada muhammad mi loo doon wax ci moom lan lay wax kon kooku jar naa xam kooku jar naa topp moo tax moom yonent bi mu ne xeet yu ñëpp danañ dugg ajana ba mu des ku bañ ñu ne ko yow yonent ndax nit dana bañ a dugg ajana mu ne waaw nu muy nekkee mu ne ku ma topp dugg aljanna ku ma bañ a topp yow yaa bañ a dugg aljanna kullu ummati la wax yadxuluuna aljanna illa man aba wa qila man yaaba ya rasul allah qaala man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba ku ma topp dugg aljanna ku ma bañ a topp bañ a dugg aljanna kon war na noo xam kooku mooy kan war nañ ko aar dafa bokk ci aqi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk toog fii ci say mbagg ci sa loos yenu nga ci juróom-ñetti aq yoo yoreel Muhammad ku nekk ci ñun toog fii ci biir jumaa ji yoreel nga Muhammad juróom-ñetti aq boo ci réeralee benn boo ci manquelee benn boo dee boo duggee biir bàmmeel di nga rëccu juróom-ñett bokk na ci wekk ko bokk na ci aar ko bokk na ci dimbali sunnaam rawatina ci jamono bii lu ko waral lépp mooy yàlla subhanahu wa taala waxoon nanu ci téeram bi tudd alquran ne muhammad maa ko yónni mu nekk leer gaa yi bëgg koo fay yuridu na la wax li yutfiu nuur allahi bi afwahihim jóg nañ bëgg a fay leeru yonent yàlla muhammad ci seeni gémmiñ wala seeni xalima wala seeni jëf yàlla nag moo lànk ne leer boobu day jolli ba fu nekk wallahu mutimmu nuuru yàlla mu ne walaw karihal kaafiruun donte ne yéeféer yi bañ nañ leer gi day jolli fu nekk lay dugg wallahi su jullit adduna bi yëpp toogoon waxuñu dara ci pour dimbali islam pour dimbali yonent yàlla muhammad dara lañ mënalul lislaam ndax lislaam ci loxo yàlla la nekk bu fekkoon ne tey ci loxo jullit yi la nekk kon fay na bu yàgg parce que jullit yi amul lu nu liggéeyal lislaam dara un milliard lañ ci kaw suuf amunu lenn lu nu liggéeyal lislaam dara ku ci nekk seeni tarixa seeni kër seeni seeni lan liggéeyal waaye lislaam kenn liggéeyalu ko lislaam mooy diina ji yàlla joxoon muhammad kenn taxawul pour defal ko dara dara dara yàlla rek moo ko aar bis bu nekk guddeeg bëccëg yàlla moo ne ci alquran wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yaruddukum an diinikum in istataau gaa yi du ñu deñ di boole seeni doole seeni effort pour fay l'islam sunu borom sax wax nañu ci suratu tawba inna allazina kafaru yunfiquna amwalahum li yasuddu an sabilillah yéeféer yu ñuul ak yu weex yi ñu ngi dajaloo guddeeg bëccëg dajale seen alal pour baare yoonu yàlla yàlla mu ne fas yunfiqunaha danañ ko dépassé danañ ko financé projet yi ngeen di gis ci àdduna bi yépp wala genn wàll gi yépp projet yuy fay l'islam la financement bi fu muy mujj mooy alal ji day perte day nekk kasaara yàlla nee na fa sa yunfiqunaha danañ ko dépassé waaye fan la ñu mujj danañ leen gagné te danañ perte man yàlla li ma bëgg rek mooy am kon mbokk julit yi yeewu dafa jot nelaw bi yàgg na xandoor nanu fàtte nañu yàlla fàtte nañu yonent fàtte nañ quraan ba yahut ak nasaraan guddeeg bëccëg ñu ngi taxaw di sotti ci deru sang bi wala ñuy wane ay image ci sunu télévision bi sax yenn saa yi nga gis ay théâtre kat waxuma sax ay tubaab waaye ay théâtre yu ñuul yu ay yu ñuul kukk toog ci télévision bi di saboté alquran di jàng aaya yi nu ko yàlla waxul waaye ñun ñëpp lan moo ci sunu wax reetaan rek xaqataay daal di kontaan daal di tëdd nelaw yal nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din ولو كره الكافرون يقول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق li yuzhirahu ala diini kulli walaw kariha al mushrikun sunu borom subhanahu wa taala nee na ci Qur'an man yàlla subhanahu wa taala maa yónni sama yonent wallazi arsala rasulahu man yàlla maa ko yónni lan laa ko jox bil huda njub wa diinil haq ak diinay dëgg kon ku bëgg a jub ku bëgg a topp diinay dëgg foo jëm man yàlla maa yónni yonent ma jox ko njub kon ku bëgg a jub muhammad ngay topp wa man ibtada alhuda bi gayrihi adallahu llah képp ku uti njub feneen fu dul yónni yonent yàlla muhammad wallahi réer nga fay jële ak foo mën a dem njub benn kese la amul yu bari benn kese la te muhammad moo ko indi te mu ngi ci alquran amul feneen feneen foo dem yaakaar ne am nga fa njub yàlla nee na réer nga fay jële wa diinil haq yàlla nee na maa jox yonent yàlla muhammad diiney dëgg amul beneen diine léeg-léeg nga dégg sax ci ay jullit ay borom xam-xam naan ñetti diine ñoo am wala nga dégg ñu naan sunu mbokk nasaraan yi wala sunu mbokk yahud yi nasaraan ak yahud du nu mbokk du nu mbokk kenn ci ñun fii ku bañoon sa baay doo mbokk ak moom kon nooy mbokk ak ku bañ muhammad su la benn waay waxoon ne sa baay rek laa bañ est ce que di nga ko ne sama mbokk nga mu ne la yonent yàlla muhammad laa bañ nga ne ko sama mbokk yahud ak nasaraan du nu mbokk yàlla moo nu ko wax te yàlla amul ñetti diine yàlla benn diine kese la am muy lislaam inna diin inda allah al islam wa man wa man yabtagi gayra al islaama diinan falan yuqbala minhu yàlla nee na ku jàpp leneen lu dul islam kenn du la ko nangul kon ñoom li ñu yor du diine fala caaxaan la moo tax ab julit warul wax yàlla dafa wàcce ñetti diine déedéet yàlla wàccewul ñetti diine benn diine kese la wàcce isa ci diine lislaam la woote muusa ci diine lislaam la woote ibrahim ci la woote yusuf mboolem yonente yi cent vingt quatre mille lañ ñoom ñëpp ci lislaam la ñu woote muhammad moo mujjee ñëw moo tax ñu tuddee ko xaataman nabiyin moo mottali yonent yi ñi doon ñëw moo leen mottali kon doomu ndey dafa jot tey àddina bi fii mu toll jullit yi rawatina jullit yi Sénégal ñu xam muhammad ba bu nu déggatee lenn lu yellul wala jaaduwul ci ay àqam ñu xam ne jullit am na Sénégal ay jullit a ngi fi comme ni àddina bi amee ay jullit suñu waxee dara ci lislaam jullit ñi dañoo war a yëngu ñu bañ a toog rek ku ñu wax sa papa nga jël yat ku ñu xas sa maam nga jël yat ku ñu wax sa sëriñ nga jël yat ku ñu wax sa tarixa nga jël yat bu ñu waxee yonent yàlla muhammad ñëpp toog mel ne dara xewul loolu jaaduwul loolu day wane ne muhammad amul place ci suñu xol yi loolu day wane ne amuñu yëg-yëg ci muhammad kenn ku nekk kala yëngal kooku nga yëg ñun nag amuñu ku toll ne muhammad ci kaw suuf amuñu fi ku toll ne muhammad te dootuñu ko fi am kooku dong lañ fi am moom la yàlla yónni woon ci ñun tudde ko alayhi salaatu salaam yàlla subhanahu wa taala ne wa ma ataakum rasul fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu lu mu leen indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen allahuma ya haadi ihdina siraat almustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا رب أهلك الكفرة والكافرين والنصارى ومن نصرهم والمجوس ومن جالسهم والشيعيين ومن شايعهم اللهم زلل الأرض تحت أقدامهم اللهم يا رب يا ذي العرش المجيد يا فعلا لما يريد زلل الأرض تحت أقدامهم اللهم يتم أطفالهم وأرمل نسائهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق wa tawasaw bi sabr qumu ila salatikum yarhamukum allah